waaw li ma bëgg a leeral rek tuuti mooy dama la koy delloo nga tontu sa bopp nga xelaat ci tuuti làmb amul dagal we tontu leen si dama laaj ñëpp maa ngi noppi yaay wax làmb am na daggal we wala amul dagal we am na fan la am làmb senegal dañ koy doxal non dama lay laaj làmb senegal dañ koy doxal làmb Sénégal bu ñu koy ni ko Sénégal di doxalee la ko Gambie di doxalee moo wax la tuuti loo xamul texte yi daw Sénégal fii moom lañ jëlee fii Sénégal dem copier ko Gambie mu nekk anglais Matar moo doon piaro Gambia mu ngi dox ci làmbu Sénégal moom lañ jël yóbbu ko Gambie gis nga mbër dangal sawee warul yàq làmb boo bëgg bëree dañu wax rek te yàlla tax kii ay magum jëmm su bëgg a làmb mën na ko yàq xoyantaan boo xoolee làmb jooju dafa pare ñëw taxaw daf koy jàppale maa ko man si meekul ñëw duma ko daan ko arbitre day dugg biir di jàpp si xaaral ba bis ba maa ngi yow nga xool ndax arbitre yàlla na arbitre yow ñëw di la sotti saafara xam man maay kan xam nga fii am na lu toog fii mu maa ngi ñaanal xoyantaan maa ngi ñaanal ma ñëw yàlla ko ndam non taxul ma jéppi ko taxul ma mere ko ndax làmb la te ragal féete day xañu warsak tey yow bi nga ñëwee Sénégal man Gambien man ak yow ñuy def jàkkaarloo mos dégg ku jël micro mu ne maa ngi ñaanal Sénégal mu am ndam ci ñi ma seqal amul waaye man dama nangu tey oh, déglul o oh, déglul gis nga ñii ñëpp la ñaanaloo du tax ma jéppi leen du tax ma def leen ci lu bokk ci làmb sport la man dama ko dund arbitre yeeg ñëpp buñ fareeg yow du ma teree bëri xanaa ñu ngëpp suma tànk yi wala ñu bëgg làmb nañ wax dëgg te yàlla tax daa sàqi parce que alxuraan daa sàq dafa sàqi kii nu mu tóoti déedéet bu ko jox micro rek man maa maay wax moo doon wax déglu ba ma tontu ba pare suy wax nga wax déedéet bàyyil ba ma pare bàyyil ba ma pare suy wax nga wax beneen bi mooy duubul tey xoyantaan xoyantaan dafa pare nekk si biir géew duubul tey seen ñëw ànd ak ay nitam di dóor ay parents ak ay police làmb di yàqu léegi loolu lu si yoonu xoyantaan xooj daan beneen combat bi mu bëree mooy contre Leket ah ak contre France dégg naa ñuy wax ne combat yooyu du ndam làmb ñett moo ci nekk daan mbaa daanu mbaa maxi bi léegi décision arbitre du làmb wala bokk ci làmb ma ne bàyyi leen seen xel ngeen toog di ko foyee ñun ñëpp ay mag jëmm lañ mbër bu boo bëree moom ba temps jeex lan moo fa ndam day am te ay champion ñoo nekk fii Sénégal fii. làmb di jeexee ci avertissement xooy daal nekk mbër bu ndaw nekk sur xubala lamb di jeex ci avertissement fu mu am bàyyi leen seen xel yi a fooye amul du si bëgg a bëri man nag ñëwee mooy dinaa ñëw ànd ak sama askan ànd ak Sénégal ak kan di ñaanal ñoom jàmm bari ñoon su lamb jaar arbitre yëpp nañ ànd ak yow duus pour mu leer waaye man lu ma tëree bëree ànd yow duus sotti la ko waaye lu ma tëree mu ngeen dégg